بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد بكل ما عدمه بأحمد ربي فلا يسأل عما يفعل ونحن مسؤولون عما نفعل يا فاتح الأبواب يا مسبب بكل أسباب ويا مقلب يا فاتح الأبواب يا مسبب بكل أسباب ويا مقلب وعام أعدي محتاذا على جلل دعاه في سفر مولى للكرم وعام أهدي محتاذا san ala jalalin daa fi shafaril mawla ulilka mawdu neena waxta mawla izama laahu xëy yarawani za xarifi ذا دود وذا شمام وعام أودي أموتا san ala jalalin daa u fi shafaril mawla ulilaka mawdunin xawaayadan inda baadin fi taabihan raxilu لو في يوم العالم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa taabihina lahum bil huda ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki adduniya mbokki sénégal gannaaw ba nu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu xaq ñëpp di ñaan suñu borom yàlla nu yàlla boole jéggal ah di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ni mooy Cheikh Ahmed Tijani di xalif général des Tijanes di ci tekk rakkam yu tedd yi di ci jiital Serigne Abdoul Aziz si al ibna al amin ah di jiital ci nuyoo bi mbay Mbaye euh, Mansour ni ni suñu baay Serigne Maodo si ak suñu pap Serigne Mbaye Abdou ak mboolem famille suñu mam Seydi Hadji Malick yëpp ah ku fa tabarakallahu dégg way yooyu xam ni am na lu xew ah li xew nag mooy bis bu rëy boo xam ni Serigne Pam Malick Diop di doom ci soxna Umu Këlsoom Mbay bu soxna umul xayri bu Serigne Babacar Sy bu Seydil Hadji malik moo amal benn bis 4 euh, avril ah fii ci Tivaouane euh, ñu ci rendre hommage Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ah fa tabarakallahu ñëpp xam Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour tabarakallahu bis boobu nekk le 4 avril incha allahu programme bi nii lay tëddee bu ñu xëyee incha allahu 10 heures fépp fu daara nekk ci Tivaouane ñu ngi lay woo ñu ñëpp ñu génn toog ci xadara bi ñu wàccee kaamil ñaanal Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ñaanal adduna bi ñaanal xadara bi ñaanal réew mi ah incha allahu bu 16h jotee fu taalibe nekk ñu ngi lay ñaan nga génn toog ci tànt bi incha allahu ñu tàmbali programme bi ah El Hadji Rawane Fall bi nga xam ne moo daan woyal Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour dana teew ca bis ba Abdoul Aziz Mbaye dana teew ca bés ba El Hadji Doudou Kenn Mbaye dana teew ca bés ba ak mbooleem tàggkatu Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam yëpp nañ fa teew kon ñu ngi ci woo di ci woo addina bi di ci woo képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mu nekk 4 avril di bisu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ñu ngi ciy woo ñëpp subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin uh, asalaamualeykum asalaamualeykum mbokk Sénégal bu ngeen di gis gisee Cheikh Ahmed Tidiane mii taxaw di turandoo xalif général Tidiane di doomu Alaaji Mbay Dondo wax kon mbir mi tirise newu ci ku ñuy wax Pape Malick di Pape Malick Diop di doomu Kalambay kanay Kalambay doomu umu xayri kanay umu xayri moom la Serigne Mansour noon yaa man xada raidala xayraati wa niami faqif ila ala baabi ummil xayri tax tanimi kooku mooy sëtam mooy maamam kooku jur Kalambay borom liggéey bu rëy bi nga xam ni amul frontière ci kër yi diine yi fukkalu diine Moussa woote rek kalambay bu ko yëgee dina ci def la mu la man ba defal sa sax borom loo xam ne ka ko woote mënu ko kalaay defal ko ñooña loola kooku nag doomam moo taxaw ni daa wuutal journée euh, Cheikh Seydi man Mansour maamam waaw surtout borom waañ wi muy umu xëyri mi jur kalambay mu jur Pape Malick di ñaa ko borom waañ wi sëtam boobu bu taxawalee sëtub maamam borom daara ji mani wat ca watit li arab dañu wa kullu shay'in ya'udu ila aslihi mbaax googu nga xam ne moom la Serigne Mansour bokk gi mu bokk ak Serigne Babacar Sy mi nga xam ne tey moo waral bis bii di di siyaar général mu ñu ñu commencé ko daanaka doxal daayira 1937 Cheikh Seydi Aboubacar 1925 la toog ci xilaafatu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ba mu dee ba 1937 ci la ñu karee nag siyaara bi ci daayiratul kiram léegi lañ fi woo sax président daayiratul kiram muy Alhaji Malick Ndoye ca Ndakaaru kon lu mooy bis bu rëy boobu moo dend ak bis bii ñuy woote waaye nag woote bi sëriñ bi wax na ko léegi muy Cheikh Ahmed Tidiane muy le 4 avril kan mooy Cheikh Seydi Mamadou Mansour mooy nga xam ni eh, radiyallahu taala anhu moom la maamam alaaji baayam alaaji Mansour noonu ayaa Ahmad al Mansour najla al xalifati fala silta Mansuran la jërëjëfe pap fala silta man sóoroon joojee ca nga dugg ñu dugg ci ñu nar a wuy si dugg ci ndax nitu yàlla moo waxoon ci nitu yàlla daa teg loxo bi ci bopp bi ne ko fala silta man sóoroon yàlla boo dañ di ko ñuy dimbali la daa kulli wijhati ci bépp anam kon nag pap lii nga dugg di nga ci am dimbalal yàlla ndax am ga ci eh, ndigal sa maam Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mi nga xam ne mooy ministre kër Seydi Hadji Malick Serigne Abdoulaye ne mooy ministre kër Seydi Hadji du daaj lu daajee ko ca lu mu daaj dina sax kon ku bëgg a daaju ñëwal déglu ndigal sax Seydou Alaaji euh, sëñ Abdou Aziz Al Amin bu la daajee du too jee ko moom laa ko tuddee te loola amit fa tabaarakallaahu yal na yàlla guddal fanam am na ci ndigal xalifab Cheikh Seydou Mamadou Mansour si muy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mais am na ci ndigalal rakki Serigne ma Cheikh Ahmed Tidiane di xalifab sëñ Mansour muy Serigne al muy Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Jamil tabaarakallaahu encouragé nañu ko ci kon Pape loolu ñoom ñoo taxaw ni ñoo ko waroon a def nga jëlal leen ko kon nangu nañu ko cent pour cent dañ la ci jàppale sa pa cent pour cent Serigne Mansour Serigne Mansour ñëpp la woon ko daa dem di maye billet màkk ba nga fekk ab catholique ngay maye ba ni ges yam ci moom ni ko ñool ma may la billet kooko ni catholique la nga yëkkati million jox ko ko million booba ni ko kon nag nga dem siyaar ji fa nga fa la neex nga wëlbati ko waat loola jàppale ba nga mujj tuub ci moom nekk tey kilifa nekk ci réew mi ma ne ko yow pa boo ko taxawalee ah yow day lu ñu naan alfadul lil mutaqaddim yow de jiitu nga nu ci ci ngëneel li xanaa jinax ju jëkk a jóg daal moo tudd jinax ku kanen koy defati nag ndax ñu bari ñu ngi koy wax nag naan dañuy taxawal man Mansour Surne waaye jiitu nga leen waaye yaa leen war a jiitu ndax kalaa la jiru umu xayre la jur umu xayre ko jur Serigne Babacar ko jur Seydi Hadji Malick ko jur kon Pape jërëjëf Pape jërëjëf Serigne li ko Sese Ahmed Tidiane waxee rek looloo am bu kenn manqué na ñëpp ñëw kala mbay ma moom eh, yal na yàlla guddal fanam mobilise na ses daayira yëpp alaaji Pape Faye mobilisé na muntadi bii na yëpp Serigne Abdou moom moom waxaale wu ma ko fa tabaaraka ndax bañ ne tëb leen fekk na soccet jatu tabaarakallaahu wasalaatu wasalaam ala rasulillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki Sénégal comme ni ngeen ko déggee suñu baay Maodo wax ko Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye di wax ko ci bis boobu nga xam ni ñoo ngi koy amal le 4 avril ci ndigalu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum ak sëñ Abdou Aziz si al Amin mi yor kàddu njaboot bi ñoo ngi ciy woo ñëpp di leen wax ni incha allahu rabbi bu 16h jotee na leen fekk si buntu jàkka ji foofu lañ koy amalee ki koy présider mooy sëñ Moustapha Sy Abdou ak sëñ Mame Malick Sy bu sëñ Mansour si ñoo ngi ciy woo mbokki Sénégal yëpp ñoo ngi ciy woo daayira yi ñoo ngi ciy woo fédération yi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam jërëjëf ida nahnu jina nahwa min taallumin wajadnahu لينا لم يشدد كن ومن لي بأزتاد يربي مريده بلا قلوة بل همة مثل أحمد كن ومن لي بإقراج الحقائق ناصحا ومن لي بتدرس الكتاب ومسند ومن لي ببذل الفقه والنحو منطق بيان معنى بديع بمسعد ومن لي بوش بل جنيد والأشعر ومن لي بآداب ودرب المؤدد ومن لي بنجم fi nujumin wa musilin naan ko Seydil Haaji Malik yow yaa ma sol usolan naan ko Seydil Haaji Malik yow yaa ma sol arodan naan ko njool faama yaa ma sol siiratal badri mi quwade wa man li tasarrufu mawlaana al imaami kama yura بمستويات هذه رمز قالية فللروح نور ما وللنفس عزة وللحلب حب في سنن من جمال وللجسم من كل العظى طيبات ويجعل مهن الرزق دون حلاله بذاك حما فرضا وصانا موطنا وأبعد kull minhuma andal ali kon fa salla alayhim rabbuna inna rabbana xad ixtaara fika alyow mi hëjahiyalihi allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatix lima wala والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى